السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mbokk yi mbokki taalib yi mbokki jullit yi mbokk yi mbokki taalib yi mbokki jullit yi ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax a baax ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax a baax di leen ziar di leen ziar ci tereftal sunu weeru bopp bu rëy bii terewteel bu weer wu rëy wii mag lool ci nun cant gi nag borom liggéey bi rek lañ ciy jiital kon liggéey bi rek lañ ciy jiital borom liggéey bi rek lañ ciy jiital moom boo xam bisub sant dañu cee digal ñu sant la ko ci boroomam bis bi dañu cee digal ñu sant la ko ci boroomam waaye man nag boo ko gisee bala ñu ko bala ñu koo santee dañ koy sant ba noppi nee nag moom ni mu ko gisee ñun bala ñu koo santale dañ koy sant moom ba noppi dañ koy sant diggam ak boroomam. dañ koy sant digganteem ak boroomam. sant ko diggam ak yonent bi. sant ko diggante ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. sant ko diggam ak gaay yàlla yi gaay gaay yàlla ci kaw. sant ko digganteem ak gaay yàlla yi ci kaw. sant ko diggam ak gaay yàlla yi ci suuf. sant ko diggante ak gaay yàlla yi ci suuf. di ko sant ci jëmmi boppam ji. di ko sant ci jëmmi boppam ji. yan bu rëy bi mu yan diggam ak boroomam muy ko. yan bu bi mu yanu digganteem ak boroomam mooy màggal ko. fa ko àggalee ni juti ñu bari jotiwuñ fa fa mu ko àggalee ñu bari jotiwuñ ñu bu ñu néew ci joti ñu néew ci joti buñ ko santee ba noppi nag buñ ko santee ba noppi nag door jëm nag ci santale ko door door jëm nag ci santale ko santale ko santale ko nag dafa am waajtaay santale ko ak santu ko nag dafa am waajtaay dafa aajo waaw dafa teew teewlu teewlu teewlu jëmmam ji ci suñu xol yi ak suñu xel yi. jëmmam ji ci suñu xol yi ak suñu xel yi. daf koo laaj. daf koo laaj. buñ ko defee. buñ ko defee. woon gannaaw lépp lu dul moom. danañ woon gannaaw lépp lu dul moom. ci loo xam ne danañ soxal. ci loo xam ne danañ soxal. ci sunuy xel ak sunuy jëm xol. ci sunu xel ak sunuy xol. sunu lépp. sunu lépp. muy sunu jublu. muy sunu jublu. jox jox delloo ko sunu lépp. delloo ko sunu lépp. il faut que dëddu. fokk nu dëddu lépp lu dul moom. lépp lu dul moom. muy moom rek muy sunu yitte. moom rekk nekk sunu yitte. ndax mën mënuñu ko fayee. amul amul luñ ko mën a fayee. noonu nag amuñu luñ ko mën a fayee. lu dul jox suñu lépp rek. lu dul jox suñu lépp rek. nekkal ko nag. nekkal ko nag. ni mu ko bëggee ci nun ni mu ko bëggee ci nun nu nekkal yàlla rek nu nekkal yàlla rek. ndax buñ buñ ko nekkalee ci ni mu ko bëggee. ndax buñ ko nekkalee ci ni mu ko bëggee. noonu la ko suñu borom bëggee ci nun noonu nii la ko suñu borom bëggee ci nun bu nu teewloo nag ci loolu ba noppi. bu nu teewloo ci loolu ba noppi. delloo ko suñu lépp. delloo ko suñu lépp. ñu door a dellusi nag. ñu door a dellusi nag. àndaat ak sunu sago. àndaat ak sunu sago. fas yéene koo santale nag. façon fas yéene koo santale nag. ci bis bii hmm. ci bis bii. kon man noonu rek laa ko gisee. kon man noonu rek laa ko gisee. kon santale ko ci sunu lépp nag. kon comme santale ko ci kon santale ko ci sunu lépp nag. mooy loolu rek nu nu delloo ko suñu lépp. mooy nu delloo ko suñu lépp. suñuy xel ak suñuy xol. suñuy xel ak suñuy xol. ak su suñuy jëf. ak suñuy jëf. xam ci ci ci ci ci ci ci jàng alxuraan. tàmbalee ci jàng alxuraan. jàngal ko xasaayidam yii jàngal ko xasaayidam yii. nga xam diggante boromam rek ak diggante yonent bi. diggante borom rek ca nekk ak diggante borom yonent bi. ak deeyaaleem ak deeyaaleem rek la. ak deeyaaleem rek la. ñu nekkal ko ci bis boobu. ñun waaj waajal suñu bopp teewlu. ñu nekkal ko ci bis boobu waajal ko suñu bopp te teewlu. fonk fonk fonk jàng yi ñuy jàng alxuraan. fonk jàng yi ñuy jàng alxuraan. fonk ko bu baax yi ñuy jàng fonk jàng yi ñuy jàng loolu lépp ñu am ci pësteef. loolu lépp ñu am ci pësteef. di ko di ko sa di ko sàkkoo ngërëmam. di ko sàkkoo ngërëmam rek. gannaaw jàng yi jàng alxuraan gannaaw jàng xasida gannaaw jàng alxuraan jàng xasida ñu wëlbatikuwaat ci sunuy jëmm ñu wëlbatikuwaat ci sunuy jëmm nanu nanu gën a gën a tàggat suñu bopp nanu gën a tàggat suñu bopp gën a torox lu jëm jëm ci jëm gën a torox lu jëm ci sant ko jëm ci sant ko jëm ci santale ko jëm ci santale ko kon bu nu bu bu bu nu teewloo ci sunuy xel ak sunuy xol ak sunuy jëf kon bu ñu teewloo ci suñuy xel ak suñuy jë ak suñuy yëpp. suñu wërsëg mi ngi ci biir loolu. suñu wërsëg wépp nag a ngi ci biir loolu. lépp nag ñu delloo ko ko. lépp nag ñu delloo ko ko. ci ci ci xeeti ci xeeti xeeti jëf yu baax. ci xeeti ci xeeti jëf yu baax yu mën a doon nag rek. moo xam ci wërsëg la jóge moo xam ci wërsëg la jóge moo ci leneen lu mën a jóge rek moo xam ci leneen lu mën a rek lu baax rek la loo xam ne lu baax rek la loolu lépp ñu boole ko loolu lépp ñu boole ko jëfandikoo ko jëfandikoo ko jébbal ko ko jébbal ko ko santale ko ko santale ko ko diggante ak boromam loolu mooy li ci jiitu loolu mooy li ci jiitu moo ci am solo looy loolu mooy li ci am solo yàlla na nu suñu borom gën a gën a gàttandoog tawféexam. na suñu borom gën gën a noo gàttandoog tawféexam. ba nin ko nin ko nin ko ko war a santale nin nu nu ko ni mane ko ni. nu ndax niñ ko war a santalee ñu xamee ni mane ko ni. jë ko ni. jëfee ko ni. jëf ju sell. jëf ju sell. yàlla na nu ko suñu borom. yàlla yal na nu ko suñu borom defal. may nu kattan gun ko gun ko gun ko mën a santalee. may nu kattan gun ko mën a santalee. ci suñ lépp ci suñ lépp. kon jërë jëf. kon ñu ngi leen sant mi ngi leen sant jërë ngeen jëf. noonu rek la. noonu rek la. bokk yi bokk yi. bokk yi bokk taalibe yi bokk taalibe yi bokk jullit yi bokk yi. kon bis bis baa ngi ñëw. kon bis baa ngi ñëw. nan ko waajal bu baax nan ko waajal bu baax. ni ko bëggee. ni ko bëggee. sunu kem kattan sunu kem kattan. Eh, nu jéem ko. nu jéem ko. loolu ci man lu ci man lu nu ci nu def ko nu def ko lu ci mënut loolu ci mënut nu yéene ko yéene ko fas fas fas ko fas ko jéem ko jéem ko sunu kem kattan sunu kattan waaw loolu loolu loolu loolu la def loolu mooy mooy àq bis bi ñu jëm loolu mooy àq bii ñu jëm mooy sunu bis boo xam ne euh, bis la boo xam ne bis la boo xam ne euh, euh, li ci nekk ci ci ci jiw yow ciw yow ci mën nu ko wax ci suñuy làmmiñ mënuñu ko xalaat ci suñuy suñu suñuy xel li nekk ci njëriñ ci bis boobu yii di ñëw mm-hmm. mënuñu koo xalaat suñuy xel mënuñu ko wax ci suñuy làmmiñ mënuñu koo xiyaas itam loolu rek xanaa dañ koy dan dan dan da dañ koy sante suñu borom rek dañ koy sante suñu borom rek sëñ bi moom dañ koy sante suñu borom sëñ bi dañ koy sante suñu borom rek mi nu booleeg moom moom mi nu booleeg moom waaye waaye waaye du loo xam ne lu lu lu lu lu lu lu nu mën la. du du loo xam ne nag lu nu mën la. dañ koy bëgg ka jéem rek. dañ koy bëgg ka jéem rek. loolu noonu rek la demee. noonu rek la demee. kon nag euh, noo ngi sant. kon nag noo ngi sant. Euh, bokk yëpp. bokk ñoo ngi sant bokk yëpp. bokk bokk bokk bokk bokk bokk yi. bokk yi. Euh, noo ngi leen di sant bu baax. ñu ngi leen di sant bu baax. nag sama sama wàllu bopp la. loo nee na loolu moom cant googu wàllu boppam la. damaa am cant gu rëy sama digganteeg bokk yi. nee dama am cant gu rëy sama digganteeg bokk yi. ñi ma ñi ma ñi ñi ma ñi ma ñi ma ma seqal sëriñ bi. ñi ma seqal sëriñ bi. ñooñu ñoo ci jiitu. ñooñu ñoo ci ñi ak ak ñi ko bokkal ñëpp. ak ñi ñu ko bokkal ñëpp nag. dana am cant gu rëy goo xam ne mun mun mun xaw ma nu ma koy sante. danaa am cant goo xamante ne xaw ma nu koy sante. sama digganteeg ñoom sama digganteeg ñoom. waxuñu ma waxuma sax jàppale ma. waxuma sax ñu jàppale ma. waaye dañ maa soññu. dañ maa soññu. dañ dimbali. dañ maa dimbali. maa sagal. dañ maa sagal. mënuma koo lim. mënuma koo lim. sama digganteeg ñoom. sama digganteeg ñoom. liñ ci jëf. liñ ci jëf. mënuma koo lim. mënuma koo lim kon. kon mboolem bokki taalibe yi mboolem bokki taalibe yi bokki jullit yi mboolem bokki jullit yi nañu xam ne nañu xam ne sama bokki bopp yi sama bokki bopp yii sant naa leen gërëm naa ñoo ko ñoo ko jëf te ñoo ko jëf ñoo ko jëf sama diggante ak ñoom di sant nag di sant nag bokki taalibe yëpp bokki taalibe yëpp ndax lenn la ñun ñëpp. ndax lenn lañ ñun ñëpp. ñi ñuy tudd di tudd bi. ñi ñuy tudd di tudd sëñ bi. ak ak ak ak ak ak taalibi ak taalibi yi ak bi. ñun ñëpp. ñun ñëpp. lenn rek lañu. lenn rek lañu noo bokk lépp. noo bokk lépp. noo noo noo noo ànd lépp. noo ànd lépp. ñooñu itam. ñooñu itam. Eh, maa ngi leen di sant di leen gërëm. maa ngi leen di sant di leen gërëm. cant gu ndax ndax ñoom ñoom ñoom ñoom ñoom sama bokki taalibe ndax ñoom sama bokki taalibe yi ci ñaari anam laa ci taxawee. ñaari anam laa taxawee ci sama bokk taalibe bi sama digganteeg ñoom sama digganteeg ñi ma ñiy tudd sëriñ bi sama bokk yi. ñi ñiy tudd di tudd sëriñ bi sama bokk yi. ñaari taxawee laa ñaari ñaari ñaari anam laa am. ñaari anam laa ci am. sama digganteeg sama bokk yi ñi ma bokkal sëriñ bi. sama bokk sama digganteeg sama bokk yi ma bokkal sëriñ bi. ñoom sama ñi nga xam ne xaddam laa ci ñoom. ñi nga xam ne xaddam laa doon doon ci ñoom. ak ñi nga xam ne mbokkum mbokkum mbokkum taalibe laa doon ci ak ñi nga xam ne mbokkum taalibe laa doon ci ñoom